mu ni ah damay dem de waaw tey lu xew datu élection ndax jar na lii coow dàq nañ fi élection législative kenn waxul dàq nañ fi élection locale kenn waxul waaye élection législative kenn waxul ñaari at kenn waxul ñetti at waaye nañ juboo ci kàddu téye ko ñu ni déet du fi am mais ñuy wax du fi am xanaa xamuñu lu charte réew mi joxe conseil constitutionnel délibéré na joxe yoon ni président la république ah maa ngi lay déglu moom mii la war a déglu nag loolu cëram la cëru Macky la kenn mënu ko foqati ci loxoom amul ku yàlla bind ci constitution réew mi nga mën a foqati kon sa nga am ngor ak yaatu ak baax ak bëgg réew mi dal nga ne kaaleen ñu waxtaane loolu te boo neexoon tëju def ko waa lii mooy coow li may nag ñi nga ni defe nañ ni bitim réew ñooy atte réew mi ndax nañ seen bopp de Sénégal France attewu ko Amérique attewu ko Russe attewu ko Chine Chine attewu ko fii ngeen toll nag guto ci guta ngeen toll guta mooy dem ngeen ba charte réew mi ku ne jël nga ci li nga moom ba mu yem fenn fi nag kenn amatul loo ciy jël mooy président nee na le deux dem te charte réew mi amul benn kayit bu ni bu nee deux jotee lii mooy war a am amul amul waaw loolu comme amul kañ waxtaane ko ba ne mën a rek rek charte réew mi laa wax daf ni président nee na bu dee ma mission est terminée au Sénégal wax na dëgg waaye nag charte réew mi laa wax constitution code électoral ban kayit moo bu président tolloo fii jeexal le deux lu koy wuutu dara amul dara waaw kenn ku nekk nag mën ngaa fëgg sa dër ne waaw na def ñetti weer ñi ne def weer ñi ne fukki fan ak juróom nungul nañ leen ko waaye président la gis nañuy toog ci saal bii mate nañu réew mi parti politique yi yàgg naa leen ko wax moomu leen réew mi de nekk candidat présidentiel taxul nga moom réew mi ndax am na si candidat yoo xam ni potu sardine sax amuñu ko ci ay nit kon nag yow mi nga xam ne yow la charte réew mi jox nga jël dat te sa aqulaay taala man xam naa ni yow mii ci bis bii dara lu réew mi nekk ci jàmm ku bëggul jàmm nag sa affaire la waaye fii jàmm fi am ma gërëm nag ñu ñëpp fàtte te ñu bokk ci réew mi les forces de l'ordre et de défense sonn nañu lool xeex nañu lool ay at ñu ngi nii ci xeex bi rek te déggu leen fenn fu ñu waxe baa ñu génne seen seen seen mari seen mer ak seen ñàkk considération bi nga xam ne moom la réew mi jël jëmale leen tey ñu ngi ni tekk te kaaraan te bokk ci réew mi nag yor kaaraange réew mi yor suñu kaaraange ñuy nelaw ndax yéen a ngi leen di bàyyi xel yéen politiciens yi laay waxal ndax yéen a ngi leen di xel ku fi jóge rek dem tëdd sa climatiseur taal tëdd nelaw ñoom ña nga ca frontière yi di saytu réew mi bàyyi la leen xel respecté nañ leen na ngeen nu respecté respecté leen kon man fi nga xam ne fa laay jeexal nag mooy monsieur le président de la république ñu ngi lay sant ci sa dal waxaat lay nga gën a dal réew dafa am lu ñu mën a wax am lu ñu mun ta wax li nga xam te mu bari te boo ko waxee réew mu tas billaahi bu ko wax ca ndee la maa ngi lay soog a gis maa ngi lay soog a gis xaw ma la waaye dama lay gërëm ndax bari na élection yu bari ci réew mi ci sa loxo yi la jaar mu am jàmm kon kuy wax dialogue parti technique bi foog ñu bàyyi la xel man nag ndey ji seex am na candidat yoo xam ne ñëwuñu mais ci réew mi lañu bokk de nungul nañ leen ko waaye lii ñu war a jël fii buñ ko jëlee te fekke wuñ ko mu dal seen kaw dañ koy jëmee kon mënoon ñoo tey kon président ñu ngi lay bàyyi ak sa xel bàyyi la ak sa bëgg réew mi bëgg bàyyi la aussi sa diggante ak yàlla parce que loo bàyyi xel la nga seet li gën ci réew mi ñu def ko man nag xam ngeen sama dat kañ la laaj leen ma ko suba mënta nekk waaye man suba laa bëggoon mënta ah, ku nekk am nga droit joxe man sama date suba la suba mais mënta nekk comme am na nag ay bis yu na nekk waxtaan ba juboo ci li mën a nekk ñu doxal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf grand sëriñ Pape Ibrahima Diagne may dellu rekk di fàttaliwaat ñaar sunu jataay wii ñu nekk mooy dialogue national bi président Macky Sall oote tey ci 26 février 2024 fii ci Diamniadio di dellu rek di sàkkuwaat ñu dimbali ma rekk ci tënk parce que li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin wi waaye ubbi nañu ay waxtaan yoo xam ne suba la ñu koy xóotal jataayu tay bi moo doon rek ubbi pour mën a fekkee bokk yey yàbbi tuuti bu suba ñu xóotal maa ngi sàkku vraiment ñu dimbali ma ci gàttal bi parce que ñu war a jël kàddu des na ab lim te bu doon sunu sago bu nu weesoo foofu war nañu mun may le président de la république jataay pour mu génne synthèse bi joxe orientation pour ñiy liggéey suba mu gën a yaatu naka noonu damay woo sunu mag di sunu sëriñ Ahmed xalifa Niass mi nga xam ni moom it réew mi xam nañu ko ñëw mu joxe ci ñaari kàddu yu gàtt di ko jégalu ci ni ñu koy indi sëriñ bi kaddu gaa ngoog yow yaa may remplacer <laughs> waaw mbooloo bi salaamaaleykum président salaamaaleykum waaw comme da ngeen a jaaxle nag te ba pare gaay yi jaaxle ma wax leen luy dindi jaaxle nga julli ndox moo koy fondement mooy ndox mi ngay jàppe dana dem ba nekk ñeenti ràkka waaye bu ñu demee sax ba ñeente ràkka yi jeex ñaari sujjóot yu yu mujj yi jeex ngelaw a koy yàq ngelawal moo koy yàq walla waaw bu ngelawal amee nag jàppaat julliwaat gars yi nag lu wax ñu ne déedéet nañ julliwaat rek jarul jàppaat téere yi ne déedéet